bu baax a baax ngeen di ànd ak yen ci xibaar yi tukkee ci biir réew mi dañu koy dal di doore ak lu jëm ci mbirum Bambaly Seck xale bu jigéen bi ñuy woowee Tida accusé na ko nag ngir ne daf ka dal di ëmbal ba noppi ñàkk jël ay responsabilité ci doom joo xam ne depuis mille 2019 la juddu maanaam 2018 la ko ëmboon 2019 xale bu juddu am ñeenti at te boobaak tey mu ngi daw ngir topp ci Bambaly ngir mu reconnaître xale bi nangu boobu lépp paternité ngir xale bi mën a am ay këyit waaye mu daal di nettali seen diggante ñoom ñaar fan la dooree ba fi ñu toll ni jur tey li la coow diggante fans ak fans moo indi lu ni mel maanaam ci fans club bu Bambaly Seck ci la xale bu jigéen bi bokkoon xaritoog moom lool waaye itam am lu ñu seq ñoom ñaar Euh, ba euh, coow dal di euh, mujjee juddu seen diggante coow li nag li ko waxal du lenn lu dul da ngay nangu sa doom ak nu mu ko nangu tax tida yenn xale bi dem yóbbu ko ci wayjuru Bambaly Seck ngir ñu dal di koy reconnaître waaye lu jëm ci wàllum paternité maanaam test ADN moom la ñuy xaar ba léegi ngir wayjuru Bambaly Seck dal di leen di o i ñu mën kaa def comme ni ko ci daa waxee pare na pour tay tay bu fekkee dañuy amal boobu lépp test ADN mu dal di koy amal ndax leer na ko ne xale bi Bambaly Seck moo ko jur waaye depuis que mu amal boobu lépp sorti euh, ci Sénégal ba lépp léegi nit ñi taayu ci di ci wax waaye moom Tida moom itam dafa mel ni taayu wut ci di euh, révéler li nga xam ne rek moom moo di euh, digganteem ak Bambaly sekk na ginnaaw bu mu defee ab entretien sa Sénégal demaat na ca Dakar Buzz. ngir daal di ndiwaat ay leeral ba ci sax ci ay accusation yoo xam ne doon nañ ko def ci kawam ndax dañu kaa yónni am déet ndax li waral loolu jamono ji gis nañ ne Bambali mu ngi def buzz ca Subatel musique waaye yooyu yëpp leeralaat na ko ne kenn mësukaa yónni ci Bambali soxlawul xaalisam soxlawul daraam lu dul ni ko rek Bambali c'est que reconnaître doom ji mu am ak moom te mu toll ci ñeenti at ñu àddu wax ci leneen mu di mariage yu mel ni tuleeg male ñu dal di koy nemmeeku ca Sen TV ginnaaw bu ñu takkee Fatima Ba di ab journaliste euh, ca Sen TV Fatima Diop doon doom ci Diop Iseg moo ca dal di topp euh, ñoom ñaar sax ñoo bokk benn bës bu ñu célébré bi lépp mariage euh, mu doon mbégteeg bànneex ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di employé Sen TV yi ndax dal dinañuy dem ci ñaari xew yooyu yëpp waaye ko ci taataan micro rek la muy wax moom moo di ñoom ñaar ñëpp mérito nañu ñu daal di leen di jël soxna waaye bu ñu xoolee moom Fatima Diop doon doom ci Mousset Diop Isaac naam bu fekkee juru ko waaye moom la ñu ko bàyyaleel ndax bàyyu Fatima Diop dafa génn àdduna comme ni ko Mousset Diop waxee te mosuñu am naqar yi mosuñu am naqar wala lenn loo xam ne rek ak jiixi jaaxaala ci seen diggante ak do seen doom ji di Fatima Diop ba tax Mousset Diop daal di cay jaare lancé wàlle am message bépp papa wala bépp yaay ngir ñu mën a yar xale yi ndax yenn dérive yi nga xam ne rek moom la ñuy gis rawatina ci réseaux sociaux yi wala yenn xale yeeg yenn jëfinu bon yi ñu mën kaa daal di bàyyi ci noonu ñu daal di jël li nga xam ne moom di kàddu yi monsieur Diop yooyu daal di koy titré ne depuis euh, son histoire avec balde a mose Diop brise la silence maanaam que monsieur Diop dafay gaarwaale ki nga xam ne moom moo di a Baldé Euh, plainte Aïssatou Diop Fall bi tukkee ci Demba Thioune ak Khady Seck di ab journaliste ci Sunugal 24 euh, depuis que Aïssatou Diop Fall annoncé boobu les plainte gisoon nañu waa Sunugal 24 di wax ne jotuñu ci boobu lépp plainte mujjee nañu ka daal di jot na ab citation directe boo xam ne Khady Seck di ab journaliste ca Sunugal 24 la ñu ko daal di plainte moom ak Demba Thioune nekkoon employé Aïssatou Diop Fall génnoon doon def ay révélation ci ndaka la ko Aïssatou Diop Fall dàqee ci lu bokkul ak professionnalisme tax nag ñu fas yéene leen atte tey ca tribunal bu Ndakaaru ndax tuuma yi nga xam ne moom la Aïssatou Diop Fall jàpp ne Demba Thioune mi dakaa teg ci kaw waaye Sunugal 24 ubbil ko seen ay buntu ba kilifa mi mu jàpp ne nag kii moo tullik kii moo mbalax lu jik njàkk ñoom ñaar ñoom ñoo njàkk maanaam site bi ak ki nga xam ne moom moo di Demba Thioune ñu di leen atte nag ngir ñu mën a xam fan la dëgg gi di féete Oumou Sall di ab xale bu jigéen bu am dafay jaay boppam moom ci boppam rek moom moo ko daal di leeral ci ab situation bu méttee métti boo xam ne bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom lan moo ko dugal tey ci mu am ñaar fukki at ak ñeent di jaay boppam ay xaritam rek ñoo ko lonkaale ba yóbbaale ko ci lu ni mel ndax ku toogoon ci poojub ndeyam la moom mooy nettali ba tey ne li nga xam ne moom moo di li muy def neexu ko waaye amatu ci pexe dem na ba tàmm ko ñeenti at yoo xam ne mu ngi ci métier mi dem na ba ci lay gañ xaalis di ci dund waaye mbokkam beddi ko ba noppi dal di koy génnee ndax daf leen a dal di déshonoré bëggatuñu ko gi ci seenu famille ba ci sax xaalis bu mu yëkkati di leen ko jox bëggatu ci dara moom ci boppam mooy confié ne ab musulman la ab musulman la waaye li nga xam ne moom lay def doon na loo xam ne tey dafa mel ni drogue ci moom ba bu ko deful sax du am jàmm mu dal di cay teg ne euh, mën naa tëdd ak ñaar téeméer ak juróom fen benn fukki nit ak lu ko toftal ci ay góor ci wenn weer boo xam ne bu ñu defee xayma bi mën nay gagné bu set quatorze mille francs ci bi nga xam ne moom moom lay nekk ci këram ah, bu nekkee ci mbedd mi daf cay gagné vingt mille francs mu dal di def en tout ne lu mu gàtt gaat dana ca gagné juróom benn fukki junni ci weer ci loo xam ne rek ay mbokkam mënuñu ko ko dal di jox. waaye li ko gën a jaaxal ah, ci li nga xam ne moom moo di métier mi muy bëgg a génn naam bu fekkoon génn na ci sax ah, ay mbokkam ndax danañu ñëwaat àndaat ak moom maanaam boolewaat ko ci famille bi am déet loolu nag moom moo nekk le cadet de ses soucis ngir métier mi nga xam ne ci la nekk te saa bu ci xëyee di réccu waaye tey ji nekk na ci ñeenti at yoo xam ne rek ci métier moom mu lay faje ay soxlaam lu ko ay mbokkam a ñu dal di àddu wax ci leneen mu di ah, nemmeeku tur bu Ousmane Sonko doon amal ne ni ki démb ca Mbuur te mu mujje jur coow bo yëf ya yeggul li ko waral mu di Ousmane Sonko ay takk der ñoo ko dogale sànni ay lacrymogène ca convent boobu ba yëf ya rek mujjul antu tax Ousmane Sonko dal di mujjee ci ca oto ba mu nekkoon ànd ak mer ba futt ngir dem dal di wax ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di gendarme arme yi euh, ci fan la ñu teg tey dal di koy euh, dogale ak convoi am di ko sànni ay lacrymogène Ousmane Sonko dal di xamal gendarme bi ne ko ab sénégalais la comme tous les di nekk euh, ci àqam ak yelleefam bu fekkee dañoo jot ay ordre ngir intimider ko nañ ko ko dal di wax ndax lu jiitu lool gisoon nañu Sonko di wax rek ne mu ngi waajal am ne meeku tuur boo xam ne leer na ko ne rek ñi ngi def seen kéem kattan ngir dal di koy faagaagal lu ni mel nag dal di gis ni ki démb Ousmane Sonko di xamle ne nañ ko bàyyi bàyyi mu dem ci jàmm ak salaam ndax bu fekkee rek jàppuñu kenn ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay convoi wala ñu di leen sànni ay bomb lacrymogène bu boobaa jàmm dina am dana amal am nemmeeku tuuram ba mu jeex ci jàmm ak ki salaam waa APR ñoom ña ngay wëy wala ñuy xalaat ana na la ñuy def rek ah, ba dal di bokk ci présidentielle yu 2024 wala naka la ñuy def ba président Macky Sall mën a doon président 2024 ci seen wàccaay nag mën nañ caa lim li nga xam ne rek moom la dal daal di jot a samp ah, ay seenub stratégie bu ñu teg ngir gagné xaalis lu tolloog un million cinq cent ci ay carte de membre lu ñu fas yéene daal di jaay apérici yi tasaare ko ci quatorze régions yi ci réew mi di Sénégal loolu nag tax ay laaj yu baree bari jot caa samp kan moo war a nekk président wala kan moo war a nekk candidat bu APR deux mille vingt quatre ginnaaw président de la république ci patt pataralam gi mu nekkee ci noonu la ñuy gis ne am na ñoo xam ne ay responsable APR lañ saa bu ñu demee ci yenn plateau télé yi wala site internet yi rek il faut ñu am ci ak porox ndollu di wax ne dara mënul tënk président Macky Sall afeleeg 2024 mu daal di nekk président en 2024 te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu jeexale xibaar yi ak wàllum tàggat yaram lu jëm ci Bamba daal dinañuy jëlaat ab dogal bu yees ci ab dossier am ndax coach bu yees ba nga xam ne moo ko xañoon li nga xam ne rek moom moo di temps de jeu am di Igor Tudor daal dinay jëlaat ay dogal yu yees jëm ci Bamba Dieng mu mel ni rek geste bi Youssou defoon dafa am effet ci Bamba Dieng mile ginnaaw conférence de bi nga xam ne rek amoon na ko ci ajuma bi weesu ngir ñuy waajal li nga xam ne moom moo di euh, première ligue ñu daal di gis nag ne euh, coach bi daal dinay wax ne dina jëlaat li nga xam ne moom moo di Bamba Dieng tegaat ko euh, ci attaquant bi mu joué comme nam doon joué waate ndax gis na ne Bamba Dieng ku am patience la waaye itam gis na li nga xam ne moom moo di évolution ci wàllum mentalam ak fi nga xam ne moom moo di wàllum technique am ba dal dinay am satisfaction ci ki nga xam ne moom moo di Bamba Dieng sénégalais yëpp nag doon xaar bileb dogal bu bàyyeekoo ci Tudor ndax moom moo mënoon tënk Bamba Dieng moo ko mënoon yeewi waaye jamono ji mën na nañoo xaarandi rek Bamba Dieng ci Olympique de am muy dal di bëttaat caax yee comme nam ko doon defee ba tey ji àdduna wérngel képp dal di koy ràññee ñu jeexale xibaar yi ak but bi nga xam ne Sadio Mané amal na ko démb ca Bayern Dominique mu mel ni gone Bambali gi jëlaat na ay forme bu baax a baax gi nag juróomi match yu weesu ca Bayern te euh, moom dafa doon mel ni rek kuy euh, tatone euh, mësul woon am but ci juróomi match yooyu waaye gis nañ lu weesu loolu te sénégalais yëpp doon ko mbamb wala àdduna yi wërngeel képp doon ko mbamb ba am ñu doon jeexi jaaxa ci Sadio Mané moomu lu weesu juróomi match yooyu nag. gisaat nañ ko muy bëtaat caax yi ba ci match yu mujj yi moom Sadio Mané mu ngay gën a wane performance waaye gis nañ ko muy gën a wane boppam ci lu jëm ci yooyu lay jongante mbokk yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal lii la ñu amoon comme ay xibaar di leen ko dëgtal fii la ñu koy yemale nag ba ëllëg incha allah.